jot di tukki ngir aajo bu waree aajo ji gën a rëy mooy nit ki na mucc ëllëg kon di tukki ngir mucc ëllëg moo xam da ngay gi ji béréb wala da ngay aji wala looy defi moo gën a war a fi te tukki maanaam génn ci dëkk daw ngir fitna fi nekk yoo xam ne day yàq diine nit ki te mënu koo fan moo gën a war mbas mu nekk ci béréb di tawat yi wàlle nga daw yooyu yëpp bu soobee daan ko misaal ba mu ba mu leer insha allahu rabbi ndax suñu borom ci wax الذي ان الذين توفوا بالملائكه ذلك bi قالوا كنا كنا قالوا yi dañoo rocc seen roo fekk leen lu ngeen doon def lu ngeen doon liggéey ba li dal leen ne nun de dañoo néewoon doole nit ñi woyofal nu teg nu xam ne mënatuñoo jaamu yàlla nan waroon a jaamoo ñu ne leen ndax yàlla si dafa yaatuwul ŋàpp fu ngeen mën a gàddaay dem fu ngeen mën a jaamoo ji yàlla mu ne gaa ñooñu kat seenu dëkk mooy safara loolu yàlla ci boppam moo ko wax